Medina jërëjëm Israawiila bi ay na moom mi borom Makka ak Medina bay Israawiila jërëjëm la ilaha sama wa sa gi si Cheikh Mbacke génne fan ma jërëjëf Ibrahima bi sëñ Mbacke soxna loo borom day fan bay laa jërëjëf Look at Fallu Mbakke borom bi nag sa baay la ji baram Mbakke si ma sama Mbakke borom ñetti kàlla yi jërëjëf la ilaha Cerno Fati borom Daaru Musi Bay Seex Moodu Balla Mbakke maam Cerno borom Daaru Sëñ Balla sa jeey jërëjëf wa Jibrilun maam Seex Ibrahima Fall Lamp Ndambay maam Seyda bu Njaay Seex Moodu Musaa Fall Sëñ Seex Fall Bay góor jërëjëf wa Jibrilun wa Jibrilun maam Seex Ibrahima Fall Lamp Ndambay maam Seyda bu Njaay Mbàkke Sëriñ Saliou Fall borom Daaru Xafoor jërëjëf wala wéreeroon sëriñ Mbacke Madina borom Madina ak bombali si borom Mbacke borom ñaamar sëriñ Cheikh bombali borom lépp alaaji Fallu Mbakke borom bindi alaaji Fallu Mbakke borom na moom alaaji Fallu Mbakke bay si Abdou Karim ku fi gën a bëgg sëñ Fallu Mbakke ne la ñokkee jug taxaw ñu mag nga Fallu borom bindi bay alaaji Baram Mbakke sëriñ Modou Bousso Dieng gi lay Alaaji Baara Mbacke Borom gi bi nag jumaa ne sangub Sëriñ Sidi Muxtaar Mbacke Borom Touba Kër Gana jërëjëf wa Jibril sirama xol buraaxi la zaati fa baata yasira borom ndaare ñaanu Serigne Saliou Mbacké borom gota nguur Serigne Saliou Mbacké sangam Cheikh Béthio Thioune amee ku fi nekkal Serigne Saliou Mbacké jugal taxaw ca kaw ñu màggal sunu yaakaar ji borom lépp ak lépp ak ñëpp Serigne Balla Fall jëf jërëjëf kar baraki sopp Cheikh Seex Moodu Fallu Faal dabal ba walan bi ya un xadimal Mustafa borom Tuuba njërëm borom lamba na may may xadim bay mu seen ma samba jërëjëf wa kulun xalimal Sëriñ Salim Mbàkke borom jàmm ak jàmm borom Sëriñ Salim Mbàkke borom jàmm ak yërmande Sëriñ Salim Mbàkke borom lépp ak bépp ñëpp Sëriñ Salim borom njurul borom ndaka borom xambal jibi ñal borom xambal borom ñàpp ñal awaay mboolo mi ko bëgg sëñ Saliou Mbacke jogo taxaw ci nga màggal bàyyi sëñ Moustapha Saliou sëñ Soxna walam sëriñ Saliou jërëjëf waran bi la un xarit borom borom kurma kumba sëñ Mor Sey Diouf Baay Sey Ibrahima Diouf sëñ Abdoulaye Diouf moom sëñ Mor Sey Diouf borom jaabi Diouf jërëjëf maanaam xalifa sëñ Ibrahima Diouf Baay sëñ Xaadim Diouf sëñ Abdoulaye Diouf baaba sëñ Mbay Diouf sëñ Mamadou Diouf moom sëñ Ibrahima Diouf sëñ Xaadim Diouf lamb jërëjëf borom ñi beeg lambay sëñ Aliou Diouf sëñ Jalla Diouf sëñ Abdoulaye Diouf borom ñi beeg lambay jërëjëf man mor say jumbaan si Ibrahima Diouf si Abdoulaye jumbaan si Mbaye Diouf jërëjëf lakadana fatadal la la la bil munajaata yoonu baay fa yoonu yàlla ku ci mën dala lu baax na ngeen borom dooru laay jógal taxaw ci nga magal borom daaru salaam ka mënu baay sëñ Xaadim Diouf Ballon Maram Aïssa Sadio Mame Diarra bu sàmm ja baraxaan ku ci gën a bëgg Seex Mundu Mame Mbàkke jóg taxaw ci nga màggal bàyyi si Mudu Xabban Mbàkke borom jënay sëñ Mame Mor Mbàkke sëñ Ibra Xuja Mbàkke borom jënay jërëjëf fii la Alaaji Fallu Mbàkke jërëjëf fii la xalifa Seex Abdu Xaadir Mbàkke jiili jërëjëf bàyyi si Mudu Balla bàyyi si Mudu Balla Mbàkke Mame Diarra borom daaru jërëjëf fii la fii la fii la

lay kay sama waaja bàyyi Seex Moodu Mbay الكتاب أهجز البلخ وكلام atta sëñ Mor Seye Diouf jërëjëf bi kitaabi borom jaabi Diouf jërëjëf bi kitaabi sëñ Makumba Diouf jërëjëf bikkitaat Cheikh Ibrahima Diouf jërëjëf bikkitaat Cheikh Ibrahima Diouf jërëjëf bikkitaat Bassirou Khadim Diouf jërëjëf bikkitaat Bassirou Mbaye Diouf jërëjëf ajal muraxa wakalan billi alal fasada akrim bi bikkitaat hadza أكرم بي من كتاب خلي بال جوال القديم برام تبان جنم سيد مام سيد إبراهيم باللم سيد إبراهيم باللم سيد سيد عبد الرحمن فال جلال بان سيد مزوات جلال الجرجب خطوا إلى خطوا إلى خطوا بلم جوري لن أبدا سيد إبراهيم سيد بلم جاس juróom sar bàyyi sëriñ fallu sar borom suuri lan abadan jërëjëf xanaa dalan bàyyi sëriñ sang sar sëriñ salim sanam sëriñ ba juróom sar jërëjëf fan xata tamatul lil xaba waata seqatu mbay jàmmaa الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتاك نعم كتاب الذي لا ريب فيه هدى فيه هدى لكل من يبتغى أرى هدا بعد ما قديمات الامتدادك يا قال يا مولاي متقيا هدا بعد ما قديمات عليك والله والذي خير صلاه وسلام

wax ji bay saal ay sëriñ saal sang bi sant la war ci jamono sang bi ay bëgg sëriñ saal defal ni ay jëf ji wax ji bay saal ay sëriñ saal sang bi sant la war ci jamono bëggub mam Seex Ibra Faal jëf ji Seex Saal wax ñi bay Saal sëriñ Saal sang bi sant la war ci jamono jëf sëriñ waaw kay ay bëgg am di man defal di wax ñi bay Saal ay sëriñ Saal sang bi sant la war ci jamono jëf ji Seex Saal loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca kaw ay beri dal salmi am ku teex be jajule jëgi jëgtaale ay daay sal ku bëgg Seex Mudu Faal lu faal jëf ji Seex Saal mooy sunum sang wax ji baay Saal mooy sunum sang ay beri dal salmi Cheikh Sall sang bi wax ci Cheikh ay Baay Sall sang bi fa am ba am jeex am Serigne Sall geɗa yatamanunga monu doy ci ji jamono ya abba am jeexo am ba geɗa yatamanunga bëgg sëriñ seen digal seen abba am jeex lo jëgal am sëriñ saal lo jëgal ba geɗa yatamanunga monu doy ci ji jamono abba am jeexo sëriñ saali wo ba geɗa yatamanunga sëñ Mbàkke soxna loo baax am ba am jeex la jëgën al firisa la jëgën bàkke la yaata manu Cheikh Ismaïla Diouf nooru laaye ah, ba am jeexoo firisa nooru laaye yaata manu gal moonu sabu sëriñ Saaliw lam defal sëriñ Béthio teewu koy borom jamono lam defal sëriñ Béthio teewu koy borom loxo ya ca kaw lam defal sëriñ Béthio teewu koy borom jamono Béthio maa mbaa mi caame borom jamono defal Seex Béthio ma ne ku bëgg Seex Béthio jógal taxaw jaga borom xam-xam bi xam na ku borom ajaleen jannatu di mahwa moo di kër Baay Sal Mbàkke janay Baay Sal daara yaa nga mahwa jannatu di mahwa ku bëgg Sëriñ Sal waawa ajanay Baay Sal daara yaa nga wax leen sëñ Mbàkke soxna lo jaajëf Mbàkke yaaya kuy muril war wana wana wana mati dondoro jaajëf jaajëf képp kuy muril na da xam ne yaay borom Tuuba Mbàkke soxna jaageen Mbàkke yaayo jaageen képp kuy muril war na xam ne yaay sëtu xaar ku bëgg borom Tayif la ku bëgg borom Tayif la ku bëgg borom Tayif la sa loxo ayu Mustafa soxna la jaajëf laajte yaaya jaajëf képp kuy murid war na la la la oh, la la Mbakke soxna la borom Tayif oh, ak Baay la war la xam ne sëñ Mbakke Madina jaajëf Mbakke yaaya képp kuy murid war na xam ne yaay doonay xaar sëñ Mbakke soxna la jaajëf Mbakke yaaya jaajëf képp kuy murid war na xam yaay doonay xaar alaaji baara neex na ma neex naa ko maa ngi koy neex bayle min baara ko mu neex aljana nga lay xaar alaaji baara neex na ma neex ana soppey Sëriñ Fallu bayle min baara ko mu neex aljana nga lay xaar loxo ya ca kaw bay baara fallu ko mu neex aljana nga lay xaar bay baara fallu ko mu neex aljana nga lay xaar bayle min baara ko mu neex aljana nga lay xaar bayle min baara ko mu ne aljana aljana lay xaar sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey